ma dem jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew mbégte la tey ñu teew fii Géejawaay Gonaas yaakaar naa ne Alioune Seye numéro 2 moo bëri ak ki nga mooy mooy wut Anta bu cees am ndam si kawam combat bi nag yàggoon na daaw la war na doon mu jëwul am ñu jàpp ko ñoom ñu dem waaji ba tax na tey ji incha allahu rabbi ñu fekk la fii sa kër fas yéene waxtaan ak yow waaye balaa ñooy waxtaan ak yow dañuy nuyu Lirou Diane les grands monuments nga xam ne tey dafa tiitoon ba man naa ko doon dalal. ah Maodo dafa tiitoon de ah. ko mu néew moog internet. jërëjëf Serigne Touba jaarama moom Cheikh Rayma Fall. maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp seen tur seen sant journaliste yi di gërëm ñëpp tey sama xol dafa sedd ndax tey nii rek la mënoon demee nii rek la mënoon demee waa Guédiawaye waa Gunaas amuñu seen fay ndax xale yi gis nañ taxawaay bi maire yi gis nañ taxawaay bi nee naa la Aline su jógee maire yi jóg paa yi jóg liiru jóg ñii rajàngiraam jóg màgget yi jóg ñi mënta dox sax di leen jóg ndax moom moo ko liggéey biir Géejawaay nekk xale bu yaru xale bu baax bu joxe cër du soppeeku nam meloon daaw ba ren noonu la mel di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm bisam bi nii rek la mënoon demee tey Alioune tey ndam rek la mënoon am barki Serigne Bamba Mbacke mënut a am woon am leneen lu dul ndam ndax da koo liggéey ba pay du tàngam lu kenn du sonnal ñëpp du sonnal ñëpp tey nag man li may wax ci combat bi laay wax autorités yi nekk Guédiawaye politiciens yi laay wax ndax tey am na ñoo xam su du ñoom tey dina ñaaw dina ñaaw lool ndax am na fu mu tolloon metti woon na metti woon na trop trop trop xam ngeen ne làmb dafa metti su ma làmb ju jógee juróomi weer dafa metti dafa metti tey ku ci mel ni maire bi monsieur le maire muy ay dara nekk maire u Guédiawaye nekk maire u Guédiawaye tey nee naa ba muy campagne xumbal mu dem tuur mu dem tànn béer mu dem sabar mu dem ëppante presse mu dem tey nag bi mu faloo ba léegi kenn mënu koo teg bët te loolu ñaaw na loolu ñaaw na loolu ñaaw na c'est honte loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw dafa ñaaw Aline doomu gox bi la Aline tey làmbu da cee am cër da cee am cër te léegi xam na làmb lan la mobilisation ku ci amul mobilisation soo ba nga toog xoolal tey ni mu def xale yi supporteram yi ñoo jaay seen dajale seen i juróom ak seen i fukk ak seen ñaar fukk jëndee ko billet tey jii joxu amu ñoo xam joxuñu leen ay billet ñu dem di ko jaay ki nga xam nii mooy dajale xaalisam di dem di jënd billet kooku doo ko jox billet mu dem di ko jaay yi tey jii xoolal li mu mobilisé te mobilisé ba tey billaahi wallaahi ñi waroon dem ñëpp demuñu li mu mobilisé li dese ëpp doole te li ci kanam raw li bët li may ñaan autorités yi politiciens yi nekk Guédiawaye élection yaa ngi ñëw te xale yi jël nañ seen matuwaay nee na ku leen dul jàppale soo ñëwee sa koñ di politique ay yett la fay génn at ay xeer waaw xale ya ma ko wax de ku ñëw di politique di campagne seen koñ te jàppale woo leen ku ci am bis jàppale woo leen ay xeer la fay génne te loolu nag dafa ñaaw dañu jàppale xale yi ñun amuñu loolu xale yi tey Alioune Seye tey jii njaak kor njaak ñoo ngi koy gërëm bu baax gis naa taxawaayam bi suru woon ak moom tey dina ñaaw kor njaak kor njaak tey la ma am nu mu def kor Ndiak maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax mention spéciale waaw day jàpp ci saayir jàpp ci baatin Ibrahima Diop promoteur maa ngi koy gërëm bu baax jàpp na ci saayir jàpp na ci baatin Basirou Ka borom téere yi Basirou Ka taalibe Cheikh Béthio boobu taalibe Cheikh Béthio basiiru Ka maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax Basirou Ka borom téere yi maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaw bu baax Youssou Ndoye sama rakk ji maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm man nag ñi ma jàppale laa wax ci combat bi ah ñi jàppale Alioune Seye ci combat bi jaarale ko ci man ñoom laay wax Modou Gueye mais maire Djidda Thiaroye Kaw ma nekk euh, président fan am moo Modou Gueye gërëm nañ ko bu baax sant nañ ko gis nañ taxawaay bi waaye nag moo ko Alioune démb la woon Modou Gueye li mu war a def rek la def ba pare tey waxoon na xale dee leen may ay billets waxoon nañ ko ci ëppoon na presse ba xale yi am yaakaar ñoom it daal di ñëw li tax nag billets yi ñëwul xamuñu ko moom moo ko xam waaye nag ñoo ngi ñaan lu mu jàppoon ma gën a jàpp ndax moo ko Alioune Seye démb woon Modou Gueye ñoo ngi koy gërëm bu baax di ko sant di jërëm tamit Dieye seen ñëw na jàpp na ci kombaa bi di gërëm maam góor at Moussa Fall sa kees ñooñ gërëm ñooñ ñëpp ñu jàppale Alioune ci combat di gërëm tam président écurie Waalo vraiment gis nañ taxawaayam jàpp na ci doomu ndey lees de lu yàgg dëgg la vraiment daal gis nañ taxawaay bi ba mu ñëwee ci écrit ba léegi jigéeniwul xale yi yàlla na ko yàlla jàppale te nag dañoo dese ay combat tey jaal combat tey bi daal combat tey bi li may wax politiciens yi nañu jàppale xale yi politiciens yi nañu jàppale xale yi politiciens yi nañu jàppale xale yi campagne yaa ngi ñëw de campagne yaa ngi ñëw Aliou Seye ko ko bañ danga koo ragal Aliou Seye ku ko bañ danga koo ragal ñu nekk ci kaw waaw Franc baax na lan la waaye lan la njaago or bi baax na na ñëw Franc na ñëw waaw na ñëw na ñëw Alioune Seye victoire bu bees jàpp la Franc yow dimbali ma nga ama Franc d'accord champion la kenn werantewul loolu waaye mook Alioune Seye combat la may la mook Alioune Seye combat la mook Alioune Seye combat la kaca barñi ali kan kaca barñi Quench combat la su xaalis génnee. waaye ku dimbali ma nga am ay coins su xaalis génnee. waa baax na na xaalis génn Aliou Seye daal moom. tubaarikàlla macha allah kenn dàq ko mobilisé. promoteur bu ko seet si fay ko la ko jaral dina bëre ndax làmb moo ko fi bàyyi. làmb moo ko fi bàyyi làmb moo ko téye xalaatuma dara. la li may wax daal moom yal na ko yàlla fa cat ndam ni yàlla na la ah. waaw. non non non non bëgguñu combat boobu bëgguma bëgguma combat. ku ma ku a may xaalis laay xool. ku ma mën a may xaalis xool. yàgg na. voilà kon jeex kon nag soxla woo ko. non génn na ci génn na ci non non waaye non non kooku waxoon na ko daal baax na waaw kon nag jeex na nan seet leneen nan seet leneen. te wuyu ma may leen ma ma ñëw. géejawaay yàlla na fi jaamu sax ñun géejawaay ñoo bokk ndey ak baay géejawaay xale yi ñoo bokk ndey ak baay saytaane yi. ak ñuy ruumandaat laa bëgg ñu tëj seen làmmeñ te noppi non ma saytaane laa bëgg ñu tëj seen làmmeñ ku bokkul géejaway bu ñu jaxaseel suñu géejaway kenn mun ñoo jaxasee géejaway ñoo bokk ndey bàyyi kenn mun fee jaxas te du seetaan kenn du ruumandaat géejaway xale yi ay combat dafa des si kanam xale yi dañoo am ay combat su ñu am combat yal nañu yàlla may na le vingt sama doom Jackson sama doom yal na ko yàlla may ndam ñoom ñëpp dañ ciy bëre waaw a ah, ak la vingt cinq décembre maa ngi woo ñëpp ñoo ngi woo ñëpp fils de Balla am na combat guy gi am na combat la kii oh, kii ñaabu ndaw am na combat Modou Anta am na combat ah, Sakes am na combat waaw Guédiawaye yàlla ca kaw ca kanam Alioune Seye yàlla na ko ndam li jik gis leen te géejawaay gépp génn géejawaay gépp gépp gépp génn lu fi leble rek ma la lay fay yàlla na nu yàlla defal jàmm géejawaay ci kaw ci kaw jërëjëf de jërëjëf boo naanee ndox maa ngi ñëwaat dégg nga ah. Alioune Seye dama lay bàyyi rek nga nuyoo mbokk internet bi bi nga ginnaaw bi nga ñëwee avocat bu mag bi dama ko fàtte maître Dialy Kane kenn du moom avocat bu mag bi maître Dialy doomu ndey dan ay dan